Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. kaddu gi di àddoo fi ci studio Alioune Momar Lo taaxum kaw ma ñu duppee Cheikh Imam si Cissé dalee nag jàmm ci xibaaru suba gi li ci gën a fës nag bokk na ci gannaaw nag ba ñu ko yónnee ab sommation interpellative moom mi nga xamee ni moo di Abdoulaye Gueye di njiital mouvement Kaolack je m'engage nee na nag waxu ba mooy waxu tayam ji jëmee itam ci ki nga xamee ni moo di El Hadji Daniel Sow te it buy wuyu ji ci kanam yoon ñoom ñaar ñooñee ñooy mi ci lu ñu tuddee ab citation euh, directe lu ni mel daañu ko yaatal ci euh, njëlbeenu euh, xibaar yi na mu baaxoo di ko defee ci weeru koor bu ne noonee itam la ko defaatee atam ren ji moom njiital mouvement MJK DFS ma nga doon amal nag ab bëccëgu ndimbalanteeg jàppalante lu soxal itam nag ay suukaru koor lu ni mel nag nga xamee ne sax ne ma nga ko jagleeloon daara yi néew di doole yi ak ay militangam ci jamono joo xamee ne itam ne responsable politique yi nga xamee ne ñu ngi ci Benno Bokk Yaakaar nga xamee ne sax ne ñu ngi faree fii ci ak euh, région bi ñu nga doon def rek itam ab wàllum ndimbalante ak euh, jàppalante loolu itam daañu ko waxtaanee euh, ci biir xibaar yi coowal boulevard de la liberté bi gannaaw nag ba mu ko fekkee ci tukki ba mu ñibbisee nag moom meexu Kaolack bii di Serigne Mboup daal dina recevoir ñi nga xamee ne ñoo di waa collectif ba di collectif aar Kaolack lu ni mel itam a ponk bu yaatoo yaatu lay doon rek ci biir xibaar yi reportage koor yu bari yi ñuy faral di teg nag ci jamonoy ah, koor gi ah, rawatina nag waxtu bi nga xamee ne mooy waxtu ah, ndogu li kenn ku nekk nag ci askan wi ak na mu ko gisee ak na mu ko jàngatee bu ñenn ñi jàppee ne itam nag ne waxtu ba ñu koy teg baaxul ndax day tombeek waxtu julli timis bi ña ca des itam la ñu wax mooy ne nag la ñu cay wane moo gën a yéesati lu ni mel itam daañu ca dégg reportage Alioune Badara Diop bu lii lépp yembe mbokk yi daañu ca teg xabaaru bitim réew tàggat yaram yóbbalu koor gi ak oustaz Mouhamed Sow toftal ca kooru gay ak baax Diop daal di koy jeexalee li ci yéenekaay yi kon ponk yaa ngoog bu bàkk bi daanoo ñu yàttal. Le journal Ngoné Ndiaye moo nekk ci euh, waxukaay gi fego ceek Codou Seck madame Keneme dalee nag jàmm ci xibaar yi euh, ñu doore ko nag ak na ma leen ko euh, junjee donte ne coow li nag mi ngi ko fekkoon ci tukki wante terewul nag ni ba mu ñibbisee moom Serigne Boub mi nga xamee ne moo di ak Kaolack bi mujj nay dalal nag waa collectif bi di aar Kaolack lu ni mel itam nga xamee ne mi ngi soxal rek mbiram boulevard de la liberté bi moom sëriñ Boub nag dikkaat na ci dossier beeg li ci nekk ci ay wute li nga xamee moom la ca war a bàyyi xel ay kàddoom mi ngi ci micro noir bi ay mbir mi bi ma ko déggee li ma njëkk a def mooy dama lëñtu maa ma fekk jëdda mais foofu laa lëñtu woo baabu moom lañ wax ma woo ko mu yónnee ma benn baay boo xam ne ni autorité yi ñoo ko signé jox ma inscription parce que baay mën nga ko am te uñ ko ñu inscrire ko ci livre foncier mu jox ma autorisation boo xam ne ni maire bi jiitoo ko signé préfet bi moo ko approuvé ma pare daal di téye loolu ah ñu wax ma ne da ngeen ma soxla ma ne bu ma ñëwee recevoir leen démb laa ñëw maa ngi nii recevoir leen liñ ma wax nag nangu naa ko ndax boulevard yi ñun ñëpp buñ sañoon day nekk boulevard yoo xam liggéey di ci def liñ fi war a def ñëpp bokk loolu mooy bëgg-bëggu maire ndax maire bu sañoon benn boulevard kenn du fa tabax loolu moo am waaye nag di fait que moom loolu yoru ko keneen na ko joxe te nañ ko joxee ñoom ñoo autorité compétent dama leen di delloowaat ci ñoom ñoo demaat ci ñoom yoraale sax suñ message ne leen dañoo bëgg lu ngeen di defati ngeen di ci dugal maire parce lu xew ci dëkk bi fu ñu jaar dugal ci maire te bu boobaa dañuy wax dëgg la waaye wax leen yëpp bu ñuy dagg suuf di joxe ñu boole ci maire ndax maire mooy joxe autorisation de construire te li ma waxoon mooy dëgg ci man su document yi ñëwoon nee mu ñëwee ba ma koy signé xooluma kan moo ko moom ndax dafa am li ci des maa ngi leen di ñaan di ko ko mu wax dafa leer nee na yaa ayyuha allazina amanu in jaakum bi nabain fatabayanu an tusibu qawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin nee na bu ñu leen indilatee information dem leen vérifier ko bala ngeen di wax nit fekk da ngeen koo tooñ da ngeen koy mujj nañ ko di def ñun ñëpp di ko def Sénégal ñoo ko moom réew mi ñoo ko moom nit ku ne nag man naa mer am lu ko naqare rek mu dal ci kaw. mu nekkoon ay kàddu eh, Serigne Mboup dañuy des ba tey nag ca googule mbir ndaxte nag ñoom waa collectif ba daal di nañuy rafetlu nag jotaay baak na mu demee woon waaye tamit nag daal di koy xamal ne la ñuy xeex daray politique nekku ci ndaxte ñoom Kaolack la ñuy eh, sàmm eh, te nag tey jii la ñu gën a dëggu rek ci wàllum xeex ba ñuy def Alioune Badara Ndaw kenn la ci ñoom mi ngi ci micro noir bi ay. tey nag ginnaaw bi

politique lay am yëpp ci rue ñu fexe bi di ko jël di ko jox portée juridique loolu bokk ci expérience politique parce que en général daa dégg maître Moussa Sarr mu ne si les trente ans yi mu nekk ci baro bi mu cee gis koo xam ne dañu di condamné jëlu sursis di ci martelé di ko jéem a fësal pour wane ne y a xam fa dëgg bi nekkee moo tax tu peux prêcher même le faux pour avoir le vrai biñ tasee ak maire bi dara du taxaw ñun dañ tudd correctif aar yéen ñu nekk ci saal bi wax nañ leen ne ñun politikuñ te ñu société civile lañ boo ko xoolee ba xool Kaolack nag ci lañ juddoo mu yar ñu dañu am njukkal guñ ko war a delloo mooy lañ taxawu ko ba ku fi ñëw bëgg Kaolack bëgg fee ñëwaat loolu nag bu mënuñ ko def lul ak maire bi heureusement bi maire bi xamee loolu ne dana nekk suñu ginnaaw lépp lu fi jaaduwul ñu fexe ba dindi ko fi waaye tarawul nag suñu xeex du buuse tarafatal ay ni on est toujours si nos bot loolu na leer lii eh, tam nag junjoon naa leen ko rek ci eh, ponk eh, xibaar yi gannaaw ba nga xamee ne yónnee nañu ko nag ab sommation interpellative ci ay kàddu yi mu yëkkati woon moom nag Abdoulaye Guèye nee na nag la mu waxoon ci El Hadji Daniel Sow tey jii la ko gën a dëggal te sax moom El Hadji Daniel Sow moomee ab plainte nag ma nga koy xaar rek jëmee ci la ñu tuddee ab citation directe Abdoulaye géey ab point de presse la doon amal ñu teewlu ay kàddoom ak Cheikh Tidiane Dieng. ki ñu naan Daniel Sow suite wax ji nga xam ne nii waxoon nañu ko ak moom daf ñu envoyé benn sommation interpellative par ñu recevoir ko ci liir ko ci jàmm tontu ko ci jàmm kon toogaay bii tey toogaay yu yëgle la envoyé nañu sommation di ñu laaj ndegam li muy dégg maa ko wax nee naa ko maa wax wax ji li nga xalaat bi maa ko wax maa ko wax je maintiens mes propos ak mes mots maanaam wax ji dindiwuma ci dara te moo yi tamit dindiwuma ci dara boole ko ci lettre xamal ko ne ko dëgg-dëgg wax ji ngay wax ni maa ko wax te ci li nga nekk doon na leen loo xam ni dañu leen topp ba fi yoon yam su ma leen avoué dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg vraiment këyit gi lii naa ko ba mu àgg mais munuma laa wax ni kii lii la ma wax ni maa ko wax mais ku dégg tubaab ku la may reproché na ma dégguma tubaab moo tax ma wax su doyee maa ko wax man liir naa ko ba mu àgg ku ma ko jox mu liir mu ne lii lan kii la la reproché mais ndeyam daa xalaat ne dama koo tooñ maa wax loolu bu fekkee tooñ la nag après bu ñu àggee tribunal a ci dañ ci c'est un véritable dilatoire ànd nawle ànd liggéey leneen luñ ci mënti nekk di wax rek ñun jàpp nañ dilatoire la dilatoire la te ñun jàpp nañu ni dilatoire la du leen fekk ci lii ci liggéey lañ leen di fekk ci nag naam nag dinañ ko jox possibilité ñu dem tribunal gis ngeen lii man mboog Ablaye Gueye motuma kaasu kafe du lu may tardeel fu nekk te du lu may téye ci dara doonut nit ku xam ni am na yenn crédibilité yi yu war a mën a tax day wax ñu di ko tontu muy Daniel Sow dafa nekk nag ci benn entreprise de destruction ak déstabilisation ak diffamation ak ay calomnie yoo xam ne nii da caa nekk depuis bi Serigne Mboup déclaré sa candidature ci députation yi ñoom ñëpp dana bokk yaakaar ñoom ñëpp ci loolu lañ nekk ab marionnette la boo xam ne nii perte ñibbisi teg ci it nag di la yëgal ne la altine incha allah ñu ngi lay annoncé sa plainte ndax usurpation bi nga def déclaré partout ne conférence tas na génn na ci kii te ñi nga xam ne leaders yi koo xam ne ñoo ko fonctionné ñi ngi ci biir loolu lépp incha allahu rabbi dinañ la servir citation directe pour que yow ci sa bopp nga confirmer tes propos ñu mën a demandoo tribunal mi ngi noonu kaddu yi Abdoulaye Gueye yooyee sax nag moo ñuy dugal rek ci coowal waxee fii ci région bi nga xamee ne sax nit ña nga ca doon waxtaanee ëllëgu coalition bi moom nag maire bu kër Maba Diakhou jaaxee na fa itam naka daal di yëkk sëriñ Boub rek lu mel ni xamee ne moom sëriñ Serigne Boub moomee nag intérêt Kaolack ñooxu ko intérêt poche am ak wàll boppam moo ko tax a jóg ay révélation yu doy waax la ca daal di indi Abdou Ndiaye la ñuy teewlu mu ngi ci micro El Hadji Oumar Cissé. un mois lañ teg ci élection yooyu mu seeti président de la république moom ci goreem matam mu ne ànd ak man ak ku àndaloo man ñëpp sama njaboot lañ dana la ci Kaolack demal defaral ma un programme précis nga andil ma ko ma dimbali Kaolack parce que Kaolack fa dëkk dama faa jànge il aime Kaolack président ñëwaat Kaolack toog ne dama koo soxla ko defaatal ma ko parce que contrat bi jeex na. 20 milliards amel naa leen ko musuma fay impôt yu Kaolack d' accord may maire loolu mën naa ko après waaye 20 milliards yi ma ameel nguur gi ak Kaolack nga épongel ma ko waaye it bëgg naa cœur de bi ñu def ko bàyyi wala ñu def ko titre foncier ci turu Serigne man li may wax c' est ku ko bëgg a weddi mën ngaa porte yi plainte mën ngaa def leneen lu la neex président ne ko waaw mu pour ma jot cinquante hectares yooyu président ne beneen bi lan la mu ne ko ñaari député bëgg naa ko ci liste nationale nga may ma président ne ko ak ban mu ne ko ministre même bu nekkul man am naa jigéen boo xam ne bëgg naa nga nommé ko ministre waaw su fekkee loolu yëpp ko dajale jox ko président fàtte nga ne président am na investissement bu mag bu mu def Kaolack plus de 17 milliards ñu di ko suul ci biir suuf nga war ko woon population bi pour ndox mi di milliards CCBM xanaa bon yow da nga doon ut Kaolack jël ko pour mu nekk sa instrument pour que nga développer sa bopp développer sa njaboot. dañuy euh, taxaw foofee ba tey ndaxte itam naka daal di ña cey euh, yokku ne euh, faw itam nag Kaolack waa yi yeewu xam itam kañu fal ana mooy kan Abdou Ndiaye ne ab pétition dina génn ci lu dul yàgg dara ngir itam moom Serigne Mbuub nag mu daal di indi ay leeral jëmee ci mbiram cœur de ville beeg ya koy tudd ay kàddoom bi tey mu ngi ci micro El Hadji Oumar Cissé. stade ca des dafa am fu koy dugal fu koy dugal ci poos arrêté wul chantier bi nekkoon ci biir mairie bi mairie bi xat na ñooy tabaxaat beneen bâtiment pour yokk mairie bi mu arrêté ko mu ne xaalis ba ca des daf koy dugalaat ci poos parce que am na leen lu ñu ci bëgg def marché bii ñu doon bale barki démb mais Macky Sall moo teg instrument bi tax bi ko doon bale mairie ko war a def defu ko utiliser instrument nguur gi pour bale marché bi ak pour nga nef Bengelloune loolu la xam moo tax mu génn ca bam wecc ne ko man gëw la ànduma yow man Macky laa gëm Macky laa àndal moom laa mos a àndal damay dem ca naw ya nekk ca Macky ma nekkoon fa te mosuma faa jóge xeex ba am li ma amee waaye léegi nag dafa bëgg doom yi doon jàppale cadre yi doon jàppale ñu baleen fa nommé ko moom ministre conseil bàyyi Modou Ndiaye loolu ah, loolu la bëgg dafa bëgg ñu bàyyi les jeunes cadres maires yi nekk gagné dana leen wax ne ASC lañ defoon kat waaye yëf yi ku nekk mën ngaa dellu sa parti cela veut sa bopp nga gëmul la nag woon nekku na ab sàcc dénk nañ ko mairie benn ñu ngi appel les ministres yi nekk ci biir gouvernement bi kum ci neexal di begg-beggal nga ñëw fii pour jël li yore jox ko mu dugal ko ci poosam bi ñun waa Kaolack danañ defanteeg yow bu ma ne ñun waa Kaolack ab région moo fi daje pétition dana génn fan yu néew pour ko boppam jox waa commerce gisuñ ci dara muy dem ci benn poste lu te terewul nit ko muy kon di laajaat président loolu lañ bëgg mu dakk pétition dana am au niveau régional parce que de bi pour ñëpp la nañ bàyyi sos yi nañ bàyyi tappale yi nañ bàyyi fen nañ bàyyi na feq yi te mu xam ne fa mu daan jaar bu jaaxlee ñoo ñoo fi nekk ba léegi bu Pape Demba bi tey nangoon jox ko marché 10 milliards wala 20 milliards wala 30 milliards ci lu jaarul ci yoon heureusement ba Pape Demba bi tey nekkee nitu dëgg nekk nitu joxe ca yoonu jaarale la ko Pape Demba bi nangu woon sëriñ bu du jox ko marché 30 milliards Serigne Boubou nekk candidat élection législative donc na waa Kaolack xam loolu na ko waa àddina xam na ko waa Saloum xam li ci des nag ndaw yi gëm seen bopp ba dem ci mairie ci gox goxaat yi gañe ñu ngi taxaw sur le terrain te xam ne suuf si Kaolack si kenn du ko séddoo Macky Sall lañ ciy déglu mu ñëw ak ay projet yu bees après les élections defaatal ñu usine bi jëlaatal ñu cœur de jox ko ñi ko moom ka doon addu euh, noonee nag mooy Abdou di euh, maire bu commune bu Kër Maba Diakhou euh, jamono ji maire doo ngeen di teewlu jàpp leen ne itam ne juróom-ñeenti waxtu ci suba gi jot na ba tegal fukki simili ak juróom eh, ca commune bu eh, Mbadakhoune. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 Euh, ca euh, mbadaxun euh, googee sax nag fa la ñu jëm askan wa fa yeewoo nag ak tund ya ko wër ba jamono ji rek ñu ngay wëy itam di jànkoonteek jafe-jafe gu aju ci wàllum ndox ña nga xamee ne itam ne seen ko kàddu nag jote na ñoom itamit ñi ngay wëy rek di yëglu ak sàkku ndimbal ci kilifa yi ndaxte nee nañu dox nañu ca wax nañu ca bataay yi Cheikh Ababacar Dieng dëkk yu bëri bokkee ci commune mu mbadaxun te jege lool Kaolack sax dëgg-dëgg na ñu ngi ci jafe-jafe ñàkku ndox gu méttee métti lii nag jamono ji moom la ñuy waxtaanee ci gox bi la yépp Mouhamadou Moustapha Sall cadre la dëkk ci Mbadakhoune di dox sax nag ci bi jafe-jafe def naa ci ay débat yu bëri ci biir Mbadakhoune pour nit ñi xam réellement lan moo xew xam nga tey sooy def adduction d'eau dafa am ay tuyaux yoo xam ne si ñoo adéquat pour nga jëlee ko cette d'eau ba ay kilomètres soo xoolee tuyaux yooyu on n'avait pas respecté les normes des installations ñu waroon a def defuñ ko ñu jël ay tuyaux yoo xam ne ay 60 la ay bu nekk Mbadakhoune inflation bu yokkoo pression bi day wàññeeku pression bu wàññeekoo nag problème mu ndox day am lii mooy li waral coow li mais loola jiitu na Jean Marie Maron maire jiitu na Malick président conseil départemental lii lépp nag mu ngi tukkee ci installation bu yàgg boo xam ne dañu ko defoon ci benn forage bu ne ci Mbadaxun ngir benn dëkk rek di Mbadaxun ci boppam tuyau yi leen sampaloon ca Satadoba ba ngir mu xelli ndox la waaye di pour séddale ndox ci yeneen dëkk yi ba ñu commencé nag di branché yenn dëkk dëkkaan yi ci bi la raakool moo indi jafe-jafe bi am na dëkk yu bari sax équipement yu bees lañu yor waaye bu ñu xellee duñu naan ndax amuñ ndox boo xoolee Flexo bi ñu fi ñëwee ba léegi Asifor ñoo fi nekkoon ñoo doon def loolu te bi ñuy daawuñ laaj techniciens yi lan lañ waroon a def maanaam membre Asifor yi ñoo doon dem jënd seen i ñoo doon dem dépenser seen xaalis ñoo installé ko ci dëkk yi boo demee Touba Sall yàggul xaalis bi mujj jógee woon Ofor te ne leen installé nañu dem ñu xool ndax am nañ ndox vingt millions yi mujj ci lañ jëlee dëkk boobu guy segal dem ko kër yangan te ils ont ce problème parce que tuyaux ya ñoo adéquat wut ci distribution d'eau ci surtout d'eau bi ba ci dëkk yooyu nag ginnaaw réforme bu bees bi nga xam ne état bu Sénégal indi na ko ci ni ñu yoree ndox mi ci dëkki kaw yi Asifor bu Mbadakhoune dañu koo tas Félix O moo gagné bi la marché waaye daal installation bi mu fi fekk moom faaw soppi ko ndax lii dara baaxu ci. Asifor ñu doon def addition d'eau yi est-ce que bi ñuy def addition d'eau yi def nañ appel d'offre ay techniciens yu xam ay entrepreneurs yu xam nan la ñuy defee addition d'eau ak fan ak fan lañ war a def li ou bien ndox di sétadoo ba fa la ne mu ngi commencé di récupérer mbaraxu ba parce que boo demee ci yenn mbaraxu ni benn tuyau central moo fa am tuyau central boobu ba ñu gasee forage bi lañ ko fi def mu ñëw ba ci pël ga continuer dem bu Burunda am na dëkk yu ko am am na dëkk yu ko amul fàttali nag Mbadakhoune chef de lieu arrondissement la nekkit commune waaye ñaari forage rek la commune bi yëpp am bii mu nga ca màkk kawoon ngi ci yoonu Kaffrine beneen bi mu ngi ci Mbadakhoune ci boppam li ëpp googulee mbir euh, bu dee nag lu soxal wàllum séddale ndox baag la ko sooxeel gox ya nga xamee ne jote nañu ak ña nga xamee ne am na ñu jafe-jafe ngir am wàllum ndox mu jaax ci yoon li lépp nag moom Mouhamadou euh, ci di ko laa bokk membre Agifor laa bokk rek ñu ne dañuy def addition d'eau ma dem Dakar jënd ay tuyau xam nga tuyau ban moo war a dem fii xam nga lan lañ ban ajout laa war a def fii laa war a def fii yokk ci ndox ndox mi day am problème kon dëgg-dëgg commune Madoxone dafa dëgg dëgg dëgg côté Saarambana ñolaaneem seen gaz dégg naa nag temps yi Flexo def nañ seen méthode pour xool nan la ndox bañ ko defee dañoo defoon direct ñun ñi jege teew yu toj parce que attuñu woon pression bi suñu robinet yi yàqu mais ci terrain bi defar yu toj dugg ci kër yi xool robinet yi am problème parce que ñoom ñoo ko defoon direct comme ñolaaneem am ndox mais dégg naa diggante démb tey la situation s'est rétablie mais li may wax nii je le dis aujourd'hui d'ici deux ans trois ans population Mbadakhoune yokk beneen addition mais nag am na bu màgg koon bi satudoo bi daa daan woon sax boobu tabax nañ ko ba mu yegg loolu mairie bi def na ay démarches avec le ministère ba mu am satudoo bu bees am nañ distribution na soogane ngi ba daaru ba baak samba jotte bokkutoon suñ commune ñu euh, des ba tey nag ci euh, fànn wi euh, beneen gox itam bu am rek jafe-jafe ci wàllum ndox nag mi ngi fii ci biir Kaolack commune ñoom nag ñu ne lu métti métti rek la ñuy dund ñoom waa daaru Ridwaan ba tax na sax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu xettali leen ci na mu gën a gaawee laata làmbaay di ñaaw Ousmane Loum wax ci seen ak tur mi ngi ci micro Cheikh Ababacar Dieng. depuis Darou Renn bu mu nekkee Darou Renn ba léegi ndox mi musul normal rawatina nag jamono yi ñu toll nii jamono yi ñu toll nii du guddi du bëccëg amul benn instant boo xam ne ndox dana am ndox dangay toog ba bët set doo am ndox branché nañ robinet yi yaa ngi ñëw ñu ngi fay facture yi facture yi na c'est doo am ndox. méttee métti métti ay compte goutte compte goutte des fois citerne indil citerne bi doyul quartier bi c'est du ñëwee citerne bi mooy loolu balaa ngay ñëw fekk na mu dañuy toog toute la journée suba ba ngoon duñu am ndox rawatina nag ci weeru koor bi mu dem uma ba léegi dafa gën a rawatina weeru koor bi coono woor nelaw guddi doo nelaw bëccëg doo dogee ba pare doo am da ngay jàpp sax ndox moo jàppee doo ko am waxuma la kër yi amul benn kër boo jafe-jafe coono bu métti la ñuy dundee daaru doon doon coono bu méttee métti li ñu bëgg daal mooy autorité yi kilifa yi nañ ñu dimbalee parce que lii yàgg nañ ko dund sa rawatina nag jamono nañ ñu dimbalee lu mën a trouver solution d'urgence boo xam ne daaru doon dana mën a am ndox ñu mun di am ndox parce que population bi bëri na sa ñu fi nekk ñëpp jigéen ñi sonn nañ góor ñi sonn nañ si commune bi la bokk daaru doon moo moo jàkkaarloo Kandé Garde mu ngi si biir quartier bi mais liñ fi nemmeeku daal mooy jigéen ñi sonn nañ góor ñi sonn nañ jooy nañ ba sonn nag dañoo bëgg yi dimbale ñu ndax daaru daan ah, mun a am ndox mu sell ndox mu ñu naan parce que ñu ah, amatuñu wërgu yaram amatuñu dara parce que lu nga ñàkk ndox ñàkk ndox daal posé nañu problème ñun ñëpp di daaru daan di ñaan nag autorité nag ñu dégg li ñuy wax ni autorité dégg ñu suñ mun ñoo dimbale yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1 ngeen ñuy euh, toppandi ba tey nag ci euh, juróom ñeen fukk yu euh, tombal benn ab ndaje nag la ñu doon amal ñoom responsable politique ak maire yi nga xamee ni ñi ngi aju ci coalition benn Bokk Yaakaar te fare ci région bu Kaolack bi lu ni mel nag ñu jaarale ko ci ab bëccëgu dimbalante ak jàppalante ak joxante suukaru koor comme nag nañu baaxoo di ko defee rek ci weeru koor bu ne moom nag Mouhamed Ndiaye Rahma dikkaat na ci solo si ci micro El Hadji Oumar Cissé alhamdulilah maa ngi sant yàlla bu baax lu daje fii tey ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir région de Kaolack di yëngatu ci keppaaru président Macky Sall baaxoo woon nañ weeru koor bu jot daanañ daje saafuwante waaye également fàttalikante kóllëre yi nga xam ne moom lañ takke woon ci kanam président Macky Sall at mu nekk dañ ko daan def reen ñu jàppoon ko tey pour def ko mooy daje saafuwante ci suñ biir waaye également fàttalikante li nga xam ne mooy pas-pas yi nga xam ne moom lañ war a am ci suñ kanam président ak suñ kanam kilifa muy président Macky Sall ñu daje woon fii tey mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo tënk région bi ñu daje fii doon waxtaan doon saafwante waaye également barkeelante tam ci suñ biir comme aada boo xam ne na xasana la sunna xasana nag heure boo ko feddalee rek dañuy jàpp ne fasante waan nañ ay kóllëre yu bees waaye également fexe nañ tamit ba mboole seen ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu tey pour dimbale président Macky Sall ci sas yi nga xam ne sénégalais yi ñoo ko ko yenn dajee nañ fii tey fasantewaat kóllëre daje nañ waxtaan suñ biir fasantewaat ay kóllëre takkaat suñuy jaaj xam ne ñu romb waaye am na lu bari des suñ kanam waxoon nañ ci fan yi ci passé ne romb nañ ay local local yi am na lu ci xew am na luñ ci jàngatee waaye incha allah suñu waxtaanu tey li ko tënk yëpp mooy naka la ñuy def ba jubbanti rang yi naka la ñuy def ba boole say naka la ñuy def ba boole sàppe si mu nekk benn sàppe ñun ñëpp ñu àndandoo ko pour fexe nekk ci keppaar président Macky Sall ba li nga xam ne moom la ñu jëm incha allah ñu def ci li nga xam ne moom lay xaar ci ñoom. Mouhamed ca ndaje sax naka fa la ñuy des ak wàllum ba nga xamee def nañu ko ca eh, ci coalition beeg li mu eh, dëgmal wutee geeg li ko mën a dindi laataa ñuy àgg ci jongante yi nga xamee ne moom la ñu eh, dëgmal moom Mouhamed Ndiaye Rahma ba tey la ñu teewlu ay kàddoom. wax naa ay yoon ne li nga xam ne moo xew Kaolack amul benn sikk ci ne appareil bi ñuy wax appareil bennoo su doxoon li xew du xew loolu moom mooy li waaye li ma jàpp mooy ñun ñëpp it dab nañ ci suñu bopp ne li ñu war mooy taxaw ci wetu kanam président Macky Sall loolu ñëpp la mboolem responsable yi nga xam ne xam nga àdduna ni ko yàlla bindee ku nekk nga déggul la naqadi doomu aadama bu nekk day jéeg di xam di xalaat di am gis-gis waaye yooyu yëpp tey fi ñu toll mooy na ñun ñëpp tey ñi ngi taxaw ci benn sàppe pour fexe ba incha allah li président bëgg ci département bi bëgg ko ci région bi ñu defal ko ko loolu mooy assurance bi nga xam ne tey loolu preuve la ci mboolem njabootam gi ñuy daje loolu li ciy joxe misaal bi gën a dëggu mooy le président benn Saloum mi nga xam ne tey njabootu président Macky Sall la yàgg a nekk ci keppaaram di ko dimbale ñàgg a nekk di ko jàppale ku nekk xam ne ne ci commune bu Kaolack la dëkk bokkutoon ak ñun te ci njaboot gi la bokk loolu doy sëkk message ci ñu jàpp ne force tranquille yi nga xam ne ñoo nekk ci biir région de Kaolack buñ dajee ñun ñëpp ci keppaar président Macky Sall incha allah la daan xew ci Kaolack rek mooy delluwaat pour ñu wutal ko bituwaat bi ñuy xaar ci ñun ñu jébbal ko ko comme ni parti yi am na ay benn benn yu nekk ni parti yëpp amee ay jafe-jafe waaye yooyu yëpp incha allah liñ nas fii mooy ne danañ dox ba ñëpp ñu boolewaat famille yëpp ñi nga xam ne famille socialiste ñu fexe ñu bokk bu ñu ne xam na AFP la ñu fexe ñu ànd yeneen parti ak yeneen parti ñëpp rek mooy ñu fexe ba ñëpp ànd incha allah wuute yi nga xam ne moo am ci biir parti yi itam jàpp nañ ne parce que li ma jàpp mooy fii ñu fi nekk ñi nekk kaw la ñëpp suñu soppe lañ amu ci kenn xañ na élection xat na souvent da ngay nekk ci activité wala nekk ci ay programme yoo xam ne yu bari sax doo ko jàngat bu weesoo nga koy jàngat waaye li ma jàpp mooy mboolem ñu nekk ci parti yi tey ci ànduñ woon ak ñun sax ñoom ñëpp suñu soppe lañ ci amu ci kenn koo xam ne ñun ñi buñ toog ak wax ak yow doo liggéeyal président Macky Sall donc loolu loolu maa ngi ciy dalal xel yi ñëpp ne incha allah daañu dox wax ak ñëpp daañu dox gise nañ ñëpp dox ba mboole seen fi coalition bi nekkoon incha allah derrière président Macky Sall loolu dana am ci fan yu néew ba ñun ñëpp ñu àndandoo nekk benn say. àndoo nekk benn nag gagné li nga xamee ne moo di législative yi lu mën a nekk la ci kaw rek ñu xam nag fi ñuy teg suñu tànk ak li ñu dëgmal boole ko itam daal di sóoraale doxalinu ak kujjeek politique bi lu ni mel nag Aïssatou Ndiaye Tall loolee nga xamee ni itam ni ña ngi ko jagleel maire région bi ay yëpp moo wax ci seen ak tur ci micro El Hadji Oumar Cissé di wax rek ne damay wax si turu maire yi tey ñu daje woon fi je pense que chaque année dañ koy def ñëw le président Moundiaye Rahma di ministre tey conseiller ñu koy féliciter de passage daan ñu woo weeri koor bu ne ñu daje ak moom li mu am kasak néew mu jël ko dimbalee ñu si les maires ñu dem dimbalewaat askan bi tey nag son frère Pape Demba Biteye di directeur général la Sénélec ñëw fekk si ko si loolu ñu boole seen i woo maire région bi nekkat dañu bëgg a waxtaan ak yéen ekkati tam ndimbal koor gi lañ nekk amuñu sens bu gisee booba léegi ñu baaluwante ak jël tam ndimbal boobu jébbal ko li nga xam ne ñoom ñooy maire yi fi daje tey les maires du département de Guinguinéo ñu ngi fi les maires du département de Nioro ñu fi le maires du département de Kaolack tam ñu fi léegi nag liñ naan tey ñu daje muy weeri koor ñu def loolu tey ñu profité aussi parce que ñu ngi jëm si ay échéances mu jëm muy élection législative may la jeunesse d'abord ne enjeu yi ñu jëm ci élection législative yi enjeu yi je pense que ça y va de l'avenir de cette jeunesse l'avenir de notre pays aussi ñu bàyyi ci xel bu baax parce que tey opposition fu ne la am mais nag une opposition républicaine mais lu ñu gis tey fii Sénégal duñ opposition républicaine une opposition boo xam ne la au toit de l'âge mi met te loolu je pense que ñoom gënuñu dëkk Sénégal di Aïssatou Ndiaye Tall ma nga xamee ne nag ne moom mooy am maire commune bu Ndiaffate euh, ci diirub ñaar ci ay bés nag la daal di amal rek ndimbal la mu daa def euh, ci jamonoy koor gi ren ji nag mu daal di koy jagleelaat rek ñi nga xamee ne ñoo di néew di doole yi euh, daara yeeg ay jege ñaaleem ren ji nag itam ñu gis ci ak ak coppite ak yokkute Cheikh Tidiane yi بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله ci baatub Serigne Amady Niass ibnu El Hadji Ibrahima Niass al Khalifa ci lañu ñu jàngee xatmu bi gannaaw bi ñu jàngee limu kaamil yu takku ci biir kër Ousmane noel Dieng mu jëm ci bëccëgu social bi nga xamante ne at mu yàlla sàkk da koy def ci weeru kokoor gi lee édition 2022 bi lee Ousmane Noël Dieng nii la dimbalanteeg waa Kaolack. Serigne Daara yi mouvement bi ak yàlla ñoo sa ñaar dërëm muy enveloppe bi un million cinq cent pour daara te korité bii di ñëw fukki daara yi fi nekkoon incha allah may naa leen ñaari nag mbootaay yi ànd ak Ousmane Noël Dieng nekk ci ginnaaw monsieur le ministre Diène Farba Sarr te teew fii may naa leen enveloppe deux millions suñu mbokk handicapé yi te Oumou Diagne jiite leen jox naa leen enveloppe bi cent juróom fukki junni man ak yéen la duma daw duma xaj yor li ma yor ak jël ko yonent yàlla Muhammad dinañ ko séddale ba mu jeex ma yàlla. li nu mel am ci teewaayu ay borom xam-xam yu bëree bëri bokk na ki Serigne Moustapha Niass mi doon wax ci turu mboolem kilifa diine yi teewoon ci barab bi. damay joxe déclaration ñeseen man la engage jàngal nañ ci bu yàggul sa baay wala usra di ay kaamil. waaye bu tey bii mënuma gis bu ko gën a nangu. ndax yàlla moo fi wone boppam. waaye tey ñeseen ñëpp ñu ngi koy ñaanal di ko xool bët di yaakaar ci moom teraanga ju sax dàkk. askan wi sant ko gërëm ko waaye tamit delloo ko njukkal Fatou Awa bokkoon ci ñi ñëwoon ci jotaay bi ni mel. ñun ñi la bëgg topp la ràññee la jox la gën. dootuñ mayeti kenn laalati Ousmane Ndeye Dieng ak foo nekk duñu dégg loolu jeex na. président damaa bëgg nga xëppi sa bët. fii bi ñu fi ji dalee jéem mosoo jël ndaare. Ousmane Ndeye nii dañoo bëgg nga tegal ñu ko fii ñu doon suñu député. moom njiitu MJK DFS di Ousmane Noël Dieng nag yëkkati ay kàddu daal di woo responsable politique yi ci booloo. saaga Mariama Sarr man Ousmane Nawel du ma la jël man ku saaga Moon Njaay Rahma boo ñëwee ci man du ma la jël ku saaga Baba Njaay boo ñëwee ci man du ma la jël waaye dëkkee saaga Ousmane Nawel dëkkee complot Ousmane Nawel yow nga jël ko tax sa wet yaa ngi ci biir complot bi asalaamaaleykum wa rahmatulah mu ngi ko def ñaari fan ci ayu bés bi la ñu génn muy samedi ak dimanche moom nag ren jile ay doomu aadama yu bëree bëri ñoom ñoo ko teeru diggante buntu këram ba gannaaw esop bu Medina Baye ci barab bile Cheikh Tidiane Diagne moom ma doon amal nag bëccëg boobee di njiital MJK DFS daal di na cay porox ndoll itam nag ngir daal di gaaral rekk njiitu réew mi ay kaddu ci li weesu ci wàllum tabbee fi itam jëmee ci législative yi nga xamee ne moom la ñu dëgmal Ousmane Noël Dieng la ñuy teewlu ay kaddoom ak Cheikh Tidiane Diagne. élection législative yaa ngi waaye yéen wax Ousmane yow bëgg sa assemblée. man waxuma ko ndax man maa ngi sant sa borom li ma am mu néew mu bëri maa ngi ci dimbale jaamu yàlla yi dama loolu rek man poste de responsabilité yàllaa koy joxe kon lu yàlla bind sama jëb yi balaa may dee incha allah naa ko waaye yéen yéen a wax Ousmane Noël yow lañ soxla ci biir assemblée nationale Kaolack a besoin kon président Macky Sall yaa ko dégg Kaolack waaye ñoo bëgg Ousmane Noël biir assemblée mun nañu waxal dëgg di wax lu jëmale kanam Kaolack monsieur président ñu ngi sàkk ci yow avec de respect nga boole ñu si liste nationale yi ñu ñëw battre campagne a Kaolack ñu génne élection législative yi taxaw bi assemblée di xeexal Kaolack di xeexal askan wi ci barki yoon yàlla Mouhamad yàlla ko yàlla def je pense que le mouvement MJKDF2S mosu la sonal ci dara mosuñu laa bind na nag ñu recevoir monsieur le président mosuñu laa chantage ñun bokkul ci ñuy génn di sànni xeer ak ñu ko mën ndax ku am doole mën nga sànni xeer ku am doole mën nga génn takk rasa rouge ku am doole mën nga génn wax lu ñaaw waaye président ñun ay góor la ñu ne la fekk nga ànd suñu bàyyi Diène Farba Sarr ànd bu rafet kon ñun dañoo amul fulla wala dañoo amul bopp wala dañoo amul lu ñu bëgg waaye dañ di gor parce que bëgguñu lu yàqu lu ñëw ñu teg ñu ko élection 2019 bi jël Farba moo ko jiite gagné élection yi à mun naa wax dañ ko troxal élection bu mës a am jël Farba Sarr gagné ko 2019 présidentielle jël Farba moo ko gagné mu ñëw dañ koo troxal devant sa jeunesse de jël dañ koo troxal devant li nga xam ne te yow waroo seetaan loolu monsieur le président xamul njublan xamul sàcc xamul lu kon ay lu bi tax ay jaxasa tax ba nga wàcc ko to xamoo soxla ko wàccee loolu c'est anormal xibaar yi ci Alfayda ak nañu baaxoo di ko defee nag yegg si nañu rek ci li nga xamee ni moo di reportage yu koor gi la ñu seetlu nag mooy ne ci jamono yu koor googee daal ci waxtu ndog bi wala sax li nga xamee ni moo di julli timis bi dañuy faral nag di gis ñuy teg li nga xamee ni moo di ay théâtre ak i sketch yu ak gàtt gàtt askan wi itam ne jot na tey ji nag ñu daal di koy càmbaraat daal di koy xoolaat ndaxte benn waxtu ba ñu koy teg baaxul beneen ba itam lañ cay wanee gën a yées Alioune Badara Diop. bari na lool fi ñu toll nii théâtre yoo xam ni dañ ko teg ci yenn télévision ci jamono bi nga xam ni dañuy ndogu wala ñu war a julli timis loolee doon loo xam ni askan bi dañ koy ñaawlu te doon na loo xam ni day wàññi sunu ngëm yàlla teg ci duñu xiir ci wàllum po te doon na loo xam ni lu ñu war a moytu la bu ñu sukkandikoo ci waajur bi di wéy ci tuuru Mor Ngom. en tant que waajur man situation boobu ni ma ko gisee eh, man rafetlu ma ko. waaw ndax euh, mën nañ suñu réew mi dafa nekk réew fee diine ji te loolu baaxut ku nekk xam na ne waxtu dog nit ñi nekk ci jaamu yàlla war a sabal nga nekk fii di tëgg ak a fecc ka way loolu amul benn njëriñ wala ngay tebaka dal di wax nit ñi reetaan te loolu baax dafa araam ci faaxan mu doon mbir moo xam ni amul benn njëriñ teg si tamit du jàngale loolee mooy kàddu ki nga xam ne mooy Fatou Niang jàngalewul dara noonu de du ma ko seetaan ndax heure boobu moom mi ngi fekk nit ñi ñi ngi war a dog ñi war a julli heure bi ñu koy moom du yoon moom waroon nañ sax bu xam ne nit ñi dog nañ ba julli ba lañ koy te man moom gaa rafetlu ma ko man duma koy seetaan wax dëgg yàlla moom ndax heure boobu ma maa ngi julli wax dëgg yàlla rafetlu ma ko de gisuma ci benn njariñ nag moom. bu njëkkoon artiste day yeete di xamle di jàngale wante fi ñu toll nii mbir moomu la dafa soppeeku lool ndaxte dañ ciy faral di gis lu bare bari rawatina ay saaga mu doon loo xam ni baaxul ci askan bi bu ñu sukkandikoo ci amaat bi tey. ministère yi nii teg nag par timis bi loolu nag lu ñu war a xoolaat la lu ñu war a seggaal ndax léegi tey jii nii bu na artiste artiste mooy lan mooy jàngale mooy teg yoon mooy yar nit ki image yi ñu a wane image yooyu xale dañ war a jànge war see ñi yàq laa gis ndaxte ay saaga ndey ay lii te yooyu yëpp xale yi bii heure bi di jot teg rek li ñuy njëkk a kii mooy gaaw jàpp sappi buñ paree dem te xoole ñaata séeréer daw ñaata ñaata ñaata séeri mooy daw ah mu nekk loo xam ne nii daal nekkul lu neex nekkul lu rafet nekkul lu jaadu mbir mi leen nag dañ koy seetlu lool ci weeru koor gi théâtre bu dem moroomam ñëw waxtu bi di dem ngay ñàkk jot doo julli li nga xam ne mooy waxtu timis bi ndax bañ benn théâtre raw la ci wante mu doon loo xam ni askan bi dañ koy ñaawlu lool xel bu baax a baax ndaxte mbir mi lee bokk na ci loo xam ne day gàllankoor suñu diine di lislaam wante ndaw ñi tamit mun nañ fa jaaree yàqu ba faw jaajëf Alioune euh, Badara euh, Diop ca boobule élément yegg si nañu nag ci li nga xamee ni moo di yóbbalu euh, koor gi tey ji nag ña ngay jàngi ji rek la nga xamee ni moo di sooratu ba la muy tegtale turam yu bari ya ak it nag la mu làmboo Oustaz Mouhamed Sow di ca waxtaan ak soxna Ndeye faatu Cissé suñu saar mooy suuratu tawba wooye ak tawba saaru tawba dafa bëri lool ay tur moom ngay jëkk a jotaat saar bi nga xam ne bari na tur bu mel ni fatiha turam yi bokk na ci tawba bokk na ci baraa bokk na ci alfaadiha bokk na ci al adab bokk na ci al almuqashqishatu bokk na ci albuxuus bokk na ci almunaqiratu ak yi ni mel ak al ak albaraa ñaarib ay xadis ñëw na ci ñu tuddee ko ak tawbatu ak albaraa yeneen turi aussi saxaaba yi ñoo ko tuddee mooy alfaadihatu ak al azabu ak almuqashqishatu ak al bu albuxuusu ak almunaqira tur bi nga xam ne mooy at tawba moom la gën a siiwee mooy at tawbatu ak baraa tawba lu muy firi mooy tuub ndaxte saar bi borom bi jalla waala daf ci wax aay yu bëri yoo xam ne mu ngi wax ci mbirum tuub ci biir saar bi bokk na ci aay yooyee borom bi jalla waala mu ngi ci wax ne fa in tubtum fa huwa xayrul lakum ci mbirum tuub la wax bu ngeen tuubee loolu moo gën a baax ñeel leen moo gën a yiw ñeel leen mu waxaat ne attaibuun al aabiduun kon tudd mbirum tuub ci saar bi dafa bari lool moo tax ñu tuddee ko saaru tawba waaye itam borom bi jalla waala nettali na ci saar bi ñetti ñi nga xam ne ñoo tardé woon xare Tabuk te amuñ ci woon benn ngànt borom bi jalla waala ne war ñetti ñi nga xam ne ñoo tardé woon xare bi sallallahu alayhi wa sallam ambargo leen ne bu kenn wax ak ñoom ñu dem ba suuf si xat ci ñoom lool ak nu mu yaatoo ba seen bopp xat ci ñoom ñu gëm ne ñu am yaqiin ne amuñu wéerukaay furul ci seeni borom jalla waala borom bi wàccee alquran nangu seeni tuub waaye baal leen seeni jëf joojee loolu bi wax na ko. xabaar yi bitim xabaaru euh, bitim réew Alioune Badara Diop ana foo koy dooree. jërëjëf Ngone Ndiaye ren xibaar bitim réew dañu koy dooreel réew bu bi wax ci ki nga xam ni mu njiitu réew mi di Adama Barrow ginnaaw ñaari ndaw ñoo xam ni dañoo bokkoon ci ngurnement bu Yaya Jammeh ñoom ñoo ñu la jël boole leen ci li nga xam ni mooy ngurnement am tab leen bokk ci parlement bi mbir moomee doon lu jaaxal askan bi lool wante bi mu ko defee donte sax ñoom ñoom léegi dañoo bokkoon ci opposition bi te yoon toppoon leen wante teewul kii di Adama Barrow jël benn décision ñoom tabb leen ñi bokk ci li nga xam ni mooy parlement bu réew bu Gàmbi xabaar yi bitim réew dem ba réew bu Guinée wax ci ki fi nekkoon njiitu réew bi di Alpha Condé ginnaaw bi ñu ko tëjee woon moom mooma jot na liberté maanaam bàyyi nañu ko ci fàttali na ñu ko téye woon ci juróomi fan ci weeru septembre bi ñu weesu ginnaaw ci benn coup d'état boo xam ni armée bi moo ko defoon ànd ceeg kii di colonel Mamadou Doumbouya wante li gën a fës ci xibaar boobule mooy que ni kii di Alpha Condé moom moomu lee delluwaat këram. xabaar yi bitim réew. dem ba Afrique du Sud du wax ci li nga xam ni mooy Covid 19 di mbas mi moom moom mu mu mel nii beneen vague moo bëgg ñëwaat ginnaaw bi ñu defee benn constat gis ni lii di kaay yi di gën di yokk foofu ci réew Afrique di Sud loolee tax na gouvernement bi moom jël na ay matukaay yi mat sëkk ngir kat dakkal li ni mel balaa beneen vague bi di ñëwaat wante tax na ñi nga xam ni ñoo yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram ñu ngi jël ay matukaay mat sëkk laata mbir mi di gën di yaatu. bitim dem ba réew bi RDC Congo wax ci xëyu ndaw ñi mbir moomu le bokkoon na ci ponk yi nga xam ne moom lañ doon waxtaanee ci benn ndaje boo xam ni amoon na fële ca Katanga te ñu dooral li ni mel ci àjjuma bi ñu weesu ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril fële ci yi ci teewaayu ki nga xam ni mooy premier ministre bi di Sama Lukonde moom moomu le tamit jot na àddu ci bile ndaje wax askan bi ñu saytuwaat baax li nga xam ni mooy wàllum cohésion nationale bi. bitim dem ba réew bu Mali wax ci discours bi nga xam ni kii di Sogel Maïga def na ko ci bu njëkk foofu sa conseil national de transition ci fàttali nag Sogel Maïga moom moomu lay mooy premier ministre foofu ci réew bu Mali ginnaaw bi mu teewee ci bile ndaje te ñu amaloon ko ci alxames bi ñu weesu ci noonu lee wane na ab bilan bu mat sëkk boo xam ni moom la amaloon ci fukki weer yi nga xam ne nekk na ci primature bi wante àdduwaal la ci li nga xam ni mooy durée transition bi wante ci waxtu boobu boobule opposant bii di Amadou Aya jot na àddu ci déclaration bi nga xam ni kii di chef guvernement bi def na ko di Sogel Maïga. xabaar yi bitim réew. jërëjëf soxna yi foofu la ñu am ci li nga xam ni mooy xibaar bitim réew yi kenn dala jàmm. yaram ak bàngook xabaaru euh, tàggat yaram Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ngoné Ndiaye maa ngi lay fay te nuyu mbokki auditeurs yi di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy door ak football fukkeelu bëccëg beeg juróom-ñeent Ligue 1 US Gorée dafa am ndam ci kanamu Mbour Petite Côte benn bal ci dara jàmbaar ñàkk ci kanamu Jaraaf bu Dakar benn bal ci dara Tëngéej FC ak Guédiawaye football club ku nekk benn bal nga dugal sa dara Pikine ak Linguère ndam demul ndam dikkul bu dee lu soxal Ligue 2 bi jamono bu Fatick dafa ñàkk ci kanamu Oslo ñaari bal ci benn NGB ñaari tali ak Demba Diop ndam demul ndam dikkul wàlli daan ak amitié ku nekk benn bal nga dugal sa morom Thiès FC ñàkk ci kanamu Sonacos ñetti bal ci dara Wakaam am ndam ci kanamu Renaissance benn bal ci dara Stade Mbour ak Port ku nekk benn bal nga dugal sa morom Duc daan Kër Major benn bal ci dara football ci jigéen ñi juróom-ñetteelu bëccëg national une ci D bi nekk Kaolack FC dafa am ndam ci kanamu Amazone bu Grand Yoff ñetti bal ci dara fukkeelu bëccëg bekk ñaar n KFC am ndam ci kanamu Espoir bu Kaffrine ñaari bal ci dara ñu dem ca Côte d'Ivoire nag ginnaaw bi nga xamante ni nag ñu bëri ci askan wi moom lañ joxoon bopp nag ngir dénk ko bopp fédération ivoirienne bu football DJ Drogba nag mujjul convaincre yi nga xamante ñoom ñooy acteurs yi nekk ci wàllum football ca wat yéen amaloon nag ba mu jeexee ki fi nekkoon capitaine wu ñay itam daal di nangu ndamu ki nga xamante ni moom mooy Idrissa Diallo bi ñu tabb mu jiit fédération ivoirienne bu football Burkina Faso ginnaaw bi ñu jëlee ñeenteelu toog bi ci Coupe d'Afrique des Nations gi ñu weesu nag xam nañ entraîneur bu yees bi nga xamante ni moo uut ki nga xamante ni moo fa nekkoon di Kamou Malo kii di doomu France ji nag di Hubert Verito moom la ñu tabb nag mu daal di fas yéene yore ñi nga xamante ni ñoom ñooy équipe nationale bu Burkina Faso ca Algérie suspense bi jeex na tàkk nag ginnaaw échec gu CAN 2021 bi ak barrage coupe du monde bi nag nag Algérie Djamil Belmadi nag daal nay wax ni démb ci ab vidéo bu mu posté nag daal dina dafay àggale li nga xamante moom mooy liggéey bi ci bopp équipe nationale bu Algérie ñu dem ca Gabon foofu nag njiitu fédération bu football ba nag di Pierre mën ngeen ni nekk nag moom dañu ko laax jant bi àjjuma ba léegi li ko waral nag police nag bi ñu defee après l'enquête loxoom dafa dugg bu baax ci agression sexuelle yi nga xamante ni maanaam sàkk yu doon sàkk xale yi jigéen ñi ci foofu noonu ci biir équipe de football ya fa nekk ñu dem ca dendu ko Europe fukkeelu sacre PSG nag kii di abu Diallo ak sa Gana Gueye nag ñoo jël championnat bi ak seen équipe bi di Paris Saint-Germain ca Espagne moom Youssouf Sabali moom nag daal dina yëkkati titre bu njëkk ci carrière am moom mooy ci wàllu senior nag ak équipe bi di Real Betis ginnaaw ba ñu gagné coupe du roi bi ca Allemagne vainqueur ginnaaw bi ñu amee ndam ci kanu Borussia Dortmund nag Bayern bu Bouna Sarr nag daal dina jëlaat championnat bu Allemagne fukkeelu nangu ko tegle nag lii mooy fanweeri titre ak ñaar bi nga xamante ne am na ko ci Bundesliga ñi di waa Bayern Munich fanweeri bëccëg bekk ñeent Premier League ca Angleterre Chelsea dafa am ndam ci kanamu West Ham benn bal ci dara Liverpool am ndam ci kanamu Everton ñaari bal ci dara Burnley am ndam ci kanamu Wolverhampton benn bal ci dara fanweeri bëccëg bekk ñeent Calcio italien Empoli am ndam ci kanamu Naples ñetti bal ci ñaar Bologne ak Udinese ku nekk ñaari bal nga dugal sa morom Salernitana am ndam ci kanamu Fiorentina ñaari bal ci benn Ngoné Ndiaye gannaaw ba la ñaanalee kandaayu jàmm lii ma gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi jaa ngeen jëf. xibaar yi ci Alfayda. ñu daal di eh, wéy nag ci xibaar yi ci eh, kooru gay moolum géej ak Bara Diop kooru gay moolum géej o xaaj Ibrahim gay ñoo ngi ci wiraas bu mujj bi ne tollu nañu ci wor wacc maanaam bés bu ñu woor dootuñ ko wooraat wor wacc o DG fii la doon kar koor gi bu ci yegsee rek xolam fii xati barke rasulaay ah. benn yaar yett yett war ma ci koor gi jeex na <laughs> metti woon tey nag lay woor woor bi spécial o DG moo ngi naxante xelam rek comme li des bariwut bëgg na ko muñ ba dal ci ànd ak loolu dal ci leelatul xadri bés bu gën junne weer o DG ay saaku suukar keesu tàndarma la wàcce ci rajo bi dajale ay liggéeykatam lépp tàmbali di distribuer am na ñoo xam ne léegi tey ñu commencé kaas da ngeen war a yokk xeetu Seydina Muhammad séddale gi c'est simple borom benn benn borom ñaar ñaar na muy waxee rek fekk madame Guèye dafa tere woon alxaaji Ibrahim wax ñaar ne DG buy lim sax ñaar da koy tëb ñu xupp ko mu fàttaliku <laughs> saxurla saxurla merci madame ci rappel bi borom benn benn ku ëppal benn benn <laughs> xanaa xam nga madame Guèye ëppalu lan DG <laughs> ci sens bi nga déggee dama leen dàq ci rajo bi bokkuñu suukaru koor gi <laughs> ñun waa bennoo lañu ba gi per yéem leen si benn jabar o oh, DG moo mën a dugg ci bërigoog tiir te du taq Haaj Ibrahim Gaye séddale na suukaru koor gi borom benn yi ñàkk fayda yi ci rajo bi o oh, DG tas na ay yaakaari borom kër naka lee góor dëgg yegg seeni kër ñu tëgg leen bërsi seeni soxna ñëw àkki si gaañ yëngal ko sëfal ko gësam ko Haaj Ibrahim lam dencoon ci këram lépp mu daal di kaa génne madame Gaye dikk Hadj Ibrahim ana la nga tegoon fii DG mooma ñaqutooy xep ànd ak koor gi mu xiifati tàngooru nangaan wi mu marati DG muy joxoñ madame Gaye waa kër Cheikh Ndiaye yi ak oustaz Bachir libaas ñoo ma jaay doole <laughs> o madame Gaye jéppi ko soo ndox bi mu yoroon la juutal ci kawam sotti ko Hadj Ibrahim yére mu dëpp ca karo ya di jooy jooylu ba feesal kollam maanaam ah, li nga def jaaduwul allah mu la ko sumtu li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf li ci eh, yéene kaay yeeg El Hadji Seydina Oumar Cissé euh, ahlan bikum xam na ba beneen soxna bu faatuwaat ñàkk bakkanam ginnaaw bu mu doon wasin ca hôpital bu Louga l'observateur moo ñu ko xamal Penda Sall la tuddoon xamoon ñaar fukki at fa doon wasin xam doom te loolu yëpp dara waralut ko lu may geraw ba sage-femme ya nekk ca hôpital ba di xamal a ah, fa ñoo wax na liggéeyuñ léegi kuy xam doom fañ lay seetaan rek càggante ñàkkal la fayda ba nga mujj dee rek ci pertement réew mi yéen a kaay dëggal ko ne waa kër docteur ya ñaari fan la ñu yokkaat ci seen geraw bi moo tax aji mbergaan kan lanu député bokk ci benn bokk yaakaar ne lu ji njaaga saas femme yi ñooy njaag ñoom ñëpp nag ñoom la le quotidien yi ne kaay na jafe-jafe yi am ci wàllu wér-gu-yaram gi fay gën a yokk soxna yaa ngi dee ci hôpital yi waa kër docteur ñoom it di continuer seen i geraw mbootaay gi taxaw aji feebar ji nekk ci dansé ña ngay sàkk yoon def liggéeyam leer laneen lu leer ba yegg ca nan ja mooy parti politique yi fa ñoo nar a sonn de ndax benn at fañ ci xamal ñaari campagne élection locale yi weesu na bii di ñëw di législatif yi tax la Soleil yéene kaay ne man kay jëlee xaalis loolu laay laaj ndax campagne fa métti de falaat xaalis bu bari source a yéen a kaay na ko waa yeewi askan wi ñoom Ousmane Sonko fañ doon amal assemblée générale ngir waxtaan ak waa wàllu Sénégal enquête yéen a kaay dëggal xibaar bi ne lëkkaloo diggante wàllu Sénégal ak yeewi askan wi gaa ya ngi koy dox ci suuf de faa xamoon nag dana sottem du sotti la sotti wut nag mooy investiture tabbu ak tànn seen mbër yi leen war a teewal ci assemblée nationale ñoom waa yeewi askan wi fañ koo tàmbali woon waaye ko mujj dakkal critique yéen a kaay ne yeewi xam lan mooy seen jafe fi mu toll nii coalition bi fa gën a màgg gën a xam doole investir yi du yomb de may leer la leer Alintine bi fi jiite woon rado ba mu wax ko tey ci wal fajiri yéen e kaay mooy ne pétrole bi am Sénégal ak gaz bi fer beeg zircon be yeneen yi ni mel moo tax ñu jiite réew mi bëgg amal ñetteelu mandat xam nga pétrole bi seen ay la feeñee waaye fa nar a dem te pétrole bi génn gut gaa yi nag bëgguñ loolu te ñetteelu mandat boo xamante ne méngawut ak yoon xellente woon Sénégal am ay attekat yoo xam ne fa moom seen bopp ba pare am ak njàmbaar fit ba taxaw ne lii du fi amee ba tey Alintine mooy wax fukki dëggam ak juróom-ñeent wal fajiri yéen e kaay Sénégal fa xam ab déggoo ci wàllu politique ne ñetteelu mandat waru fee xam loolu moom ku say bët baax da ko gis li mu gis ba wax ñu ko moom la wéree journal mooy ay journaliste Sénégal yoo xam ne fi mu toll nii fa ñëw sóobu ci làng politique gi lépp ngir bëgg a am ndomba tànk xam nañu ko ci jot a xam xam nañu ko ci xamoon ñàkk ko xam nañuy wuti l'évidence yéene kaay jox kàddu Pape Simaxa bu nay leer ma ngay dugg ak attaqué sëriñ bu maire bu Kaolack <laughs> ah, yaw seetal Pape Simaxa nee na sëriñ bu daal fa a bàyyi jaabante défilé gi mu nekkee suba yaa nga télé bële yaa ma sax daw raw fa war a wu ci jafe-jafe askanu Kaolack li jënti ko moo gën ñu ne déetawaay askanu boulevard liberté ñoom it ngay ñaxtu ne tabaxu ka ñuy wax laxaat baabu na fa jógee fa ñoo fas yéene sax amal ñaxtu baare oto yi dara du jàll ajjuma bi di ñëw ba tey l'évidence yéene kaay di ñu xamal ne Ousmane Noël Dieng moom ma ngay sàkku ci président Macky Sall mu fal Diène Farba Sarr ministre ndax xelloo na ko te yàgg naa taxaw Macky te liggéey na ko kàddu yi ni mel nag ma ko yëkkati moom Ousmane Noël Dieng ci bi muy organiser la ñuy wax journée sociale suukaru koor ak ndugu koor ak ndimbalante ak askanu Kaolack ndangaan moom la amal ak mouvement am ba ca geneen wàll ga nag moom Ousmane Noël Dieng ma ngay artu Serigne Boub ne ko Kaolack ak lay xool te fañ lay muñal feeg benn at li ñu xaar ci yow ci suqali Kaolack mu xam su xamul nag rek ñoo ngi sa kaw de ndax moom nee na suqali Kaolack rek ko ñor li ñor armée bu Sénégal mooy fexe ba teg loxo Salif Sadio ak i nitam ca Casamance libération na moo tax ñu ngi koy lukkat ba léegi de l'observateur moom di ñu xamal ne Sénégal daal li ñuy wax loi ak règlement ñu bëri respecté wuñ ko fa ñuy salfaañe lu leen neex def <laughs> yow dal fa ngay gis kuñ filmé wane ko ci réseaux sociaux yi te filmé ga du yoon yéen bi joxe ci misaal Adji Sarr li def dem ba ci bureau doyen des juges moom Adji Sarr di filmé Ndeye Khady Ndiaye ak juge bi ba pare génnee vidéo yi loolu fa garaaw te keneen su ko defoon ñu tëj ko kaso ñu ne déetawaay vidéo Cheikh Oumar Diagne ba ñu tëj ca kaso ga ñu filmé ko muy wax ñu wane ko loolu yëpp yoon fa ko tere waaye gars ñoom seen yoon lu leen neex rek def de la kon ndaw sam doon xëccoog fori na new waaye lañ seetlu nag mooy téeméer ñett ci dañoo toog bañ a dem wote ji libération moom di ñu xamal wàllu tappale gu ñu njort ne xam na ca poste finance yaw seetal fa xam ay nit ñu fa tijji compte ñu jël seen xaalis bi ngir jox ko ñeneen ñu fa ubbi compte bees doy na ci misaal Ousmane Diallo vingt mille francs le déposé ba pare encaissé onze millions ay waay ndaw Samba am na ñeenti nit nag ñun ca teg loxo ñeneen ñu ñu teg loxo mooy sénégalais ba ak malien ya yoroon lu jege ñaari milliards suñu xaalis ca frontière ba tey nag info yéen a kaay fa xëy di laajte bu bëri boobu yëpp fan la jëmoon fa ñu jëm Matam ak Kanel boo moytuut mooy ne xiif fale na nar a rey lu jege juróom benn téeméeri junne doomu aadama fa ñoo xiif sonn buñ xañee duñu reer léeg-léeg sax duñ xañ duñu reer yéene kaay bi ne buñ ca wax du baax de am na nag xibaar yu génne ne état bu Sénégal tànn na njaboot ya fa gën sonn ngir yónnee leen ñeen fukki millions ak ñeent séddale leen ko si du quotidien ne man faa xamut fexe ba réew mi ñu xam lekk gu doy fexe ba ndaw ñu xam xëy liggéey li daal xaw ma kañ lay xam Sénégal professeur Mamadou Moustapha Seck ma ngi cay joxe xalaatam ci yéene kaay bi docteur li ñuy bay li ñu lekk kàddam yaa ngi ci l'évidence yéen a kaay turbine yéen a kaay moom di ñu xamal ne juróom-ñaari doomu aadama faatu nañ ci accident ci fukki minute ca yoonu Tataguine ba xam na ñoo xam ne ndeysaan ay mbokk lañ léesi ko yéen a kaay moom di ñu xamal ne ñaari xale yu góor ñoo doon xuloo xeex ndax xale bu jigéen benn xale bu góor ba sant ba daal di rey Assane Gueye yëf yaa nga amee ca jidda caaroy kaw karay nag seen kër fa xam ñu fa dem tojate kër ga rajaxe ko jël fa ñetti écran plat xaalis gaañ fa benn policier ak benn xale boo xam ne fañ ko mujj yóbbu hôpital wàllu fiiraangeeg bëgg lu neex bu jigéen ngeen di rayante ah Sénégal lu nekk nga fiy gis l'observateur mais xaaral faa leen ci yokkal laneen lu garaaw juróomi xale yu góor yu am fukki at ak juróom benn fa ñoo jàpp xale bu jigéen bu am fukki at ak juróom di ko wiole doon ko awantoo ku pare jox sa morom ba xale bu jigéen ba ma nga ca diggante dund ak dee urgence hôpital lañ ko yóbbu yëf yaa nga amee ca Bakel mu ngoog nag man defaa jommi ci réew mi euh, euh, li ci yéenekaay yi ponk boobee sax nag mooy jeexal euh, xibaar yi waaye nag xibaar yi day wéy ci 3w point radio alfayda point net jaajëfal moom Mouhamadou Khalili mi fare ci partie digitale bi jaajafal leen yéen ñi fare woon ci wàllu déglu gi jaajëfal Codou Seck keneen mi ci wàllum xarale gi ak it waa rédaction ci njàppandal gi wéy leen di ànd ak sunu ay programme ñaanal nañu leen mucc ak mucculee jàmmi biir ak biti tawféex ak taysir jàngeen jëfati Le journal Ngoné